nag daan am benn ndaje ñun ak ñi nga xamné ñoy ñooy partenaire au développement ñi nga xamné ñoy ñooy liggéey ci lépp lu jëm ci euh, environnement des affaires ak compétitivité te USAID ñu jité ko ñom ñoo nak organiser ndaje tay bi invité yenn partenaires yi invité tam secteur privé ñu né nak dañuy waxtaan tay li jëm ci partenariat public privé xam ngeen weer yi passé wala at yi passé ñu ngi doon liggéey ci réforme cadre institutionnel partenariat public privé ndaxte suñu cadre PPP dafa nekkoon loo xam ne xawoon na jafe tuuti xawoon na mën naa wax sax jaxasoo tuuti xaw a euh, jafe pour investisseur mën a gaaw a investir ci nga xam ne mooy partenariat public privé son excellence président Macky Sall nag santenu ñu ñu réforme bu rëy macha allah simplifier cadre bi ndax mu gën a yomb ndax investisseur bu ne nga nekk fii Sénégal wala ci bitim réew ah, mbir mi gën a yomb ndax nga mun a comprendre suñu cadre légal système bi ñuy utiliser pour mun a am partenariat diggante secteur privé ak état surtout di jëm ci ay infrastructure wala ci yeneen fànn tey nag waxtaan bi nag lu jëm ci loolu la parce que réforme bi pare na loi bi yéen ngeen président jël décret li attirer les investisseurs pour que partenariat public privé gën utiliser ndax financer développement au Sénégal surtout ci plan de relance bi ñu le pape. 2A loolu mooy parce que nous bëgg ñëpp xam que ne loi bi euh, décret léegi nag lu des mooy communiquer waxtaan ak wa waa investisseurs yi ñu def tout ba ñëpp comprendre cadre bob ndax ñu ko utiliser loolu daal moo nekkoon dañu tay bi ma leen gërëm leen sant merci.